boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen man am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo kii jàkkaarlu ñun te duñu seetaan asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi amati mbégte kontaan te di ñaanal xalif général kulu murid Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu ci ànd ak wér noonu tam nañu yëkkatee ay nuyoo ak di ko teg ci loxol ki nga xamante ni moo di sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall ji di ko ñaanal yàlla dolli ko tawféex bu baax a baax ak mbooleem njaboot ak Cheikh Ibra Fall gépp mbokk nag tey su ngeen gisee fii ñu nekk dañu koy wax poste contrôle bi nga xam ne euh, moo nekk ci marché Ocass euh, ak tali bi jëm 28 ba jëm fi nga xam ne mooy kër Sëñ Daam Daraame muy mbeddu mag mi nga xamante ni mooy mbeddu marché moo mule tey jii nag di bës bi nga xamante ni euh, Baye Fall yi joxe woon na ndigal nag ci kilifteefug sëñ Amdi Fall Modou Mbenda ngir nag lépp li nga xamante ni Serigne mun Mbacké waxoon na ko ngir nag ñu setalal ko fi nga xam mooy mbedd mi bàyyi ko xel bu baax a ñu defee ko ko ni nga xamante ni noonu lañ ko bëggee. ba tax na nag ci kaw loolu tey jii ñu gis taxawaay bi nga xamante ni bii Baye Fall am nañ ko ginnaaw bi nga xamante démb nag waxoon nañ ni dañ fiy xëy sóobu waaye nag waxal ni dañoo joxe ndigal loo xamante ni amul yàqal kenn amul def lenn loo xamante ni bii boolewut ak ndigal ndax Baye Fall kenn ku ne xam nañ di yàq liggéey rek mooy li nga xamante ni moom la war a def tàmbalee ci ndigal yem ci moo tax nag gis nañ taxawaay bi nga xam am nañ ko mbooloo mu takku mu fasantikoo mi nga xamante ni génn nañu waaye itam ànd ak yar ànd ak teggin ñoom ñëpp nag déglu li nga xamante ni mooy ndigalal jëwriñ yi tàmbalee ko ci nga xam mooy sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng mbooleem fukki buntu kër yi maam Seera Fall yëpp ak taalibe ak murid génnandoo gis nañ marché bi kon niñ ko wëree fi mu toll nii ci côté yëpp nag wër nañ ko ndar képp ko ngir lan ngir fas nag lépp li nga xamante ni lu sëñ bi euh, digle woon la ca liñ war a génn ñu génne ko ci luñ fi war a def ñu def ko ci ci ndigal la nekk jamono jile kon ci kanam tuuti incha allah daañu gis cantine yi nga xamante ni wala mbaar yi nga xamante ni wala leen ci trottoir li nga xam yokkoon nañ ko ci bokkut ci euh, marché bi bokkutam ci li sëñ bi bëggoon yëpp dañ ko dindi ci kàttanu yàlla kon ci kanam tuuti ñu ànd ak yéen ci image yi ay témoignages ay reportages nga xamante ni euh, dañ déglu mbokki taalibe yi ñu def ko ci taxawaay bi léggéey bi nga xamante ni tey jile sëñ Mountakha Mbacké joxe na ko ci lépp nag di defar jërëjëf alhamdulilah rabbil alamin ñoo eh, ngi nuyu bokk taalibe yi di nuyu bokk murid yi eh, di sant sant yàlla bu baax a baax nag ndax nun day lan doon nit yàlla dogal na sax mun tax mbàkk yi doon koo jox ndax kat Cheikh Rafal moom fu ñu mën a toog baatu ndigal rek la ñuy déglu baatu ndigal bi nag ñun buñ ko jotee rek regg nañu waaye ñu sant nag kilifa yi ñu àndal ndax kii ñu àndal teel mooy sëñ Fall Fall yow sëñ Modou Aminta ak mbooloo mi nga xam ne ay ñëpp ñu fas yéene àndante ñu fas yéene wéy ci ndigal li liggéey bi nag dafa am aw doxin moom doon doxee ndax njëlbeen gi sëñ bi def na noo demaloon gaar ba ñëwoon gaar ba daa bëgg ñu leeral gaar ba loolee tojoon nañ ko ba noppi waaye yooyee jamono nag daa waxoon ne danaa leen yebal ca konnis ba ngeen leeralal ma konnis ba konnis ba it ban xëyee ban jógee fa lañ tàmbalee waaye dafa amoon ndogal gu doxoon ci diggante bi ndogal ga nag mooy marché occas kenn ku ne xam na li fi newoon waaye kenn ku ne xam na it lakk fi nekkoon loolu lépp nag ay dogal la loolu taxoon njaal géen bi soo déggee am na ñu dem marché okaas loolu ñàkk xam rek la ak réeroo kër Cheikh Rafal moom liñ leen yar mooy yar ak teggin ak worma ñetti mbir daal la ñuy bañ yoo xam ne ko defut daanaka doo jot jikko sëñ bi woo nañu doo ko nu tudd yàlla ngay doo tudd yàlla nu joxe addiya ngay doo ko yóbbu ñett yi mooy mbañum kër Cheikh Rafal lu dul loolu moom fu nu waay dëkk nangu ko ndax ñu bari amoon nañ ciitànge naan murid yi bu ñëwee marché Ocass danañ yàq nangam danañ yàq nangam déedéet Cheikh Rafal du yàq Cheikh Rafal doon dajale mbooloo mi di wan nan lañ mën a àndanteeg sëriñ bi di wan a yar ak ak teggin diggante boobu ci la nekk mën ngaa wër marché bépp mbooloo mi nii la mel waaye kenn ku ci nekk doo def lu ñu la defloowut ndax jawriñ ji ñu àndal daa a ay rakam ñu topp biir mbooloo mi lu ñu war a dindi ñooy lii lañ war a dindi luñ fa war a bàyyi ñooy li lañ fa war a bàyyi kon duñu nu duñu xuloo duñu ŋaayoo duñu xëccoo benn baat rek lañ soxla jëriñ sëñ Tuubaa daal bu dee def leen nangam ci loolu rek leen jëm waaye lu dul loolu defu defu defu loola ndigam it dañuy déglu suñ jàmbaar ji baax jooju nga tudd nag Cheikh Modou Fall Fall dane wii ci ndigal lu ko tax a baax loo def buñ ne ku la ko def loo nga ne ma Penda Diop day moom a ko def loo kon ma Penda Diop la ñuy waaye yow dootu dootu ñoo seeti kon nun mun taqaa moo jigal ku am looy wax waxal moom kuy am looy def defal moom lépp nu sal daal fas dañ ko yéene def kàlla jërëjëf Baye euh, Ibrahima am na solo trop ñu ngi lay sant di la gërëm euh, di sant bu baax ci kàddu yeeg euh, mat gi nga xam mat na ko di sant bu baax itam rakki sëriñ bi ñoom ñëpp ñu ngi nii toog àndanteeg euh, sëriñ Modou Falilou sëriñ Falilou Fall moom sëriñ du Aminta ci pas-pas bi ñu am ak dogu gi gis naa sax lépp lu leen jox lu mën a doon dañ koy daal di joxaat sëñ bi jébbal ko ko nga xamante ne toppante gi bëggante gi ak nawloon tegeeg soppante gi nga xamante ni bii moom la Seera Fall sase woon euh, lii di Mbaye Fall euh, ci ndigalal Serigne Touba yaakaar naa taxawaay boobu am na ci kër gi kon sant nañ leen baax gërëm leen ak yéen magi taalibe yi nga xamante am yéen a ngi dar Serigne bi boobaak léegi ca euh, xàddiwu leen benn yoon yal na yàlla doolu tawféex baax a baax kon ba ci kanam incha allah la laa ilaaha illa laa ilaaha illa laa ilaaha illa laa ñu ànd ak yéen ci reportage bi nga xam moom la amal fii ci marché Ocass bés bi nga xamante nag euh, Baye Fall yi agsi nañ ngir nag euh, li ñuy wax sax bale lañ mën a wax ndax laata ñu ñëw fekk nañ marchand ambulant yi jëfe na ndigal li nga xamante ni moom la Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké santaane mu jaar ci sëñ Amdi Fall Modou Mbenda ñun nekk ki nga xam moo di sëriñ El Hadji Fall mi nga xam nag moo jiite marchand ambulant ñu nekk fi nag tey euh, bëggoon nag sëñ bi ginnaaw bu ñu nuyu ziar la pare yëg-yëg bi nga xamante ni am ngeen ko ci ndigal li ak jëfe gi oyof gi nga xamante ni ndigal li oyof na ko ci yéen en tant que ay taalibe ba Baye Fall yi suñu war na daaj yi war a def leen ak leen dana metti waaye ñu ne fekk na yombalal leen ko bu baax a baax a baax a baax muy liggéey bi tey jii euh, taxawaay bi nga xam marchand ambulant am na ko te liggéey bi nga xam moom la Baye Fall def tey waa salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna euh, ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen euh, di sant yàlla di sant sëriñ Touba di sant sëriñ Serigne taxaa euh, di sant sëriñ Serigne Amdi Modou mbend di sant tamit mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi. di am sant yàlla bu baax a baax di rafetlu aussi tamit liggéey bi Baye Fall yi comme ni ñëwee fii nii fekk na ñun ñi nga xamante ne ci lañ bokk jëfe nañ ndigal li nga xamante ne ni moom la Serigne bi joxe. ndax képp koo xam ne taalibe nga nekk fii ci dëkk bi buñ joxee ndigal yaa ci war a jiitu taxawaay boobu nag lañ ci am di rafetlu tamit liggéey bi ni am ni ko Baye Fall yi defee di ci ànd ñoom di am kontaante bu baax a baax ndax lépp loo xam ne ndigalu sëriñ bi la rek ñun loolu dañ ciy am xol bu sedd guy duñ ci am dara luñ ci naqari ba tax na laataa Baye Fall yi di fi ñëw ñu jëfe ko comme ni nga xamante ne ni noonu la ko sëriñ bi bëggee ba lépp loo xam ne ci wàllu daj ji la wala lu ñuy toj wala lenn loo xam ne ab liggéey la Euh, lu jëm ci marché ambulant yi loolu moom defoon nañ ko ba pare euh, li ñuy ñaan rek mooy bu fekkente ni liggéey bi dem na ba jeex ñu taxawu ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon te amoon fi seen i place te fi daan seeni doole te xam ne lii yëpp ab defar la te defar tamit fokk mu jiite nii mu nuru yàq waaye ñun xam nañ ne du yàq ak defar la defar gi nag moo tàmbalee nii waaye ñi ngi ñaan ñu organiser li nga xam ne mooy marché bi ba ñu fi nekkoon ñëpp ku ci nekk mën a xëy di fi daan dooleem di ko am ni mu ko amee ndaxte dëkk bi moom pas-pas bii rek a fi nekk euh, liggéey ak jaamu yàlla rek la ko sëñ bi sañce woon te loolu tamit ci lañ fas yéene nekk ba keroog ñuy wuy ji borom euh, di leen sant yéen waa istixaaba euh, liggéey bi ñi mu impacté na mm-hmm. ci marchands ambulants yi ndax tey ba nga xamante ni suñu yoon dana yaakaar naa du jafe ndaxte li amoon yëpp ci wàllu liggéey bi mooy organisation te marché ambulant yi am nañ organisation boo xamante ne ni tey Euh, pour fekk si leen ci loolu euh, taxawu leen loolu lu yomba yomb la impacte bi nag moom ñi mu impacté bari na lool euh, ndaxte avant lii di mastaw sama mbokk yi ma nga xam ne ñoo bokk nekk fii nii ñenn ñi ma bokk ak ñoom taxawal taxaw ak fii nii ndax avant lii di am ak lakk gu métti jaar na fi lakk suñuy place ak ñeneen ñoo xam ne tamit ñi ngi ci wàllu gële tamit ñoom it loolu dal na leen mu bëri ñoo xamante ne ñu ci néew doole lañ te boobu ba léegi tamit amul benn taxawaay boo xamante ne gis nañ ko ci ñu leen ci taxawoo du du kenn ci dëkk bi mu nekk lu metti loolu kon bu liy ñëwee dalaat seen kaw boobu ba léegi tamit ñu toog liggéeyuñ defuñu dara loolu tamit lu méttee métti la kon tamit dañuy ñaan kilifa tamit ñu taxawu ñooñu ndaxte tamit lu métti eh, ci doomu dëkk bi lañ te tamit eh, lu mel ni waamee amee ñëpp ci war a teg seen loxo ngir ndaw yooyu mën a delluwaat seen activité loolu moom ñu koy ñaan kilifa yi bu baax a baax fa la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha amul taxal amul commentaire commentaire doo gis nag ay boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyeekoo.